waaye bu rafet na ah am seen ñoo na tribunal la sa kees yaay ñun ñëpp sant Modou Lo sama doom ndey xarit ñëw na fi su ma limee ne damay juuma mais ñëpp ñëw nañu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla na fi yàlla def jàmm. ko mel ni Modou Lo waaw ñëw na fi waaw ñëw na fi Gris Bordeaux tamit ñëw nañu may yàlla daf ma gën tey ci vendredi maa koy sant bu baax a baax ah, di ñaanal Modou Lo ah bu ñu dëgg te yàlla tax. def na acte boo xamante ne ça m'a vraiment touché laal na ma sama xol ñu ñaanal ma loolu la mbokkum jullit jëriñ moroom jullit waaw maa ngi koy wax ne ko yàlla na ko yàlla fay xolam ci acte boobu ma defal noonu maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla taxaw ci lépp di sant ñëpp ñi ci wax ñëpp seetaan naa lépp gis naa ñëpp bu ma limee nag damay juum mais yàlla rek tamit gis naa taxaw wax ci waaw ñaa yaa ngi dégg sam papa Khadim jay bo ñaa tamit deg na yeb yaa ngi dégg mu nek ko xamantene tamit nit ku ñak ki ñaan daje nañ mais xol bu rafet ba leg mu ngi sax ci xolam yal na yalla yàlla defal jàmm. jërëjëf yàlla yéex jërëjëf waaw maa ngi ñew Père Bécaye mom euh, sumay nek di wax fi mom lolu lolu sama digënté man ak Père Bécaye la. Mm-hmm. fo ma togo ak moom. Mm-hmm. yaa ngi yéen ñëpp ngeen tok mm-hmm. ñun ñu tok waxtaan. ma wax leen li nga xamantene mom lama defal te yalla rek tax. man sama papa Bécaye Modou Mbaye aw ma seen fay ah. yéen ñëpp yéen journaliste yi yëpp aw ma seen fay yéen ñëpp ku ci wax rek maa ngi leen di déglu. Mm. yaa ngi dégg parce que fii tamit kaso la mais tamit am na yoo xam ne dañu koy may pour ñu koy xool. yaa ngi dégg yéen ñëpp déglu naa seen i interview mais yàlla laa ñu di bàyyeel. waaw Modou Anta yow tamit nit ku baax nga ah. ah vraiment kontaan naa ci yow trop yal na la yàlla defal jàmm yàlla yokk la ci barke Seydina Muhammad sama doom bi. kan ma jox waaw kooku moom daf cee sonn day ñëw fi di jooy rek walaay day ñëw fi di jooy rek billaahi walaay kooku kooku yàlla moom ma booleeg moom du affaire journaliste moom daf ma bëgg ba mu nekkee xale ba léegi moo tax yàlla rek laa koy bàyyi sama gan jooju noonu yàlla na ko yàlla fay xolam yàlla guddal fanam ku mel ne Jamaïcain doon na fi ñëw ma demal la comme temps bu gàtt